bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci suñu fukkeelu jataay ci jataayu tafsir al quraanil karim yi ñuy ànd ak yéen ci biir weeru koor bi tey ñu war a firi saar wi tudd al alaq suuratul alaq te muy saar wi yàlla tàmbalee iqra bismi rabbika allazi xalaq juróomi aaya yi nga xam ne moo jiitu ci saar wi mooy aaya yi njëkk njëkk wàcc ci alquranul karim te mooy fi yàlla waxee ne iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqal insaana min alaq iqra wa rabbuka al akram allazi allama bil qalam allama al insaana ma lam yaalam juróomi aaya yi mooy aaya yi njëkk wàcc ci alquran mooy aaya yi njëkk wàcc ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom yonente bi nag xam ngeen ne moom nekkul woon ku jàng moom ummi la woon mooy koo xam ne mënul bind mënul jàng yàlla sax mi ngi wax ci alquran karim naan huwa alladi baafa fil ummiyina rasula kon ci ay yii la yónni ummi ne ñoom mooy xeet woo xam ne daal mii nañu woon jàng loolu moo tax bi nga xamee ne jibril ñëwal na ko ne ko iqra jàngal moom yonent bi sallallahu alayhi dafa taxaw di ko seetaan ne ko man day mënumaa jàng waaye jibril xaw ko sonal bés ko bu baax dal koy bàyyiwaat ne ko iqra jàngal yonent bi waxaat ko li mu ko waxoon ne ko man mënumaa jàng xaw ma luy jàng jibril jàpp ko bësaat ko ba xaw koo sonal ba ci ñetteelu yoon bi nag jibril na ko iqra bismi rabbika lasi xalaq wax ko juróomi laa yi ma waxoon léegi doon koo bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di mokkal aaya yooyu daal di koy jàpp kon yàlla tàmbalee laa yi digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko mu jàng iqra jàngal waaye booy jàng li ngay jàng ne nekk bismi rabbika sa turu boroom sa turu boroom boobu nga xam ne moo la bind moo lay wërsëgal sa boroom boobu nga xam ne lépp lu am ci àdduna moo ko bind allazi xalaq sa turu borom boobu nga xam ne moo bind mu teg ci xalaqal insaana min sa borom boobu moo bind doomu aadama ci alaq alaq mooy euh, lumbu deret mooy lumbu deret xam ngeen ne doomu aadama daa bokk ci étape yi muy jaar bu ko yàlla bind mooy euh, étape boo xam ne dafay nekk lumbu deret day nekk lumbu deret yàlla mi ngi ko wax ci alxuraan si beneen bërëb sax am na fu muy waxee naan wala xad xalaqna al insana min sulalatin min tin thumma jaalnaahu nutfatan fi qararin makin thumma xalaqna al nutfata fa xalaqna al alaqata mudgatan fa eh, kon gis ngeen ne doomu aadama bokk na ci étape yi muy jaar mooy yàlla def ko alaq te mooy def ko mu nekk lumbu deret kon day njëkk a nekk maniyu day njëkk nekk maniyu ginnaaw bi yàlla def ko lumb deret ginnaaw bi mu doo ko def dogu yàpp ginnaaw bi mu doo ko sol ci yàpp woowu nag ay yax def ci ruu mu doo ko nekk doomu aadama kon yàlla fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko sa boroom boobu nga xam ne moo bind lépp luy mbindeef allazi xalaq ba noppi xalaqal insaana min alaq moo bind nit moo bind nit ci alaq mooy mu jële ko ci eh, lumb deret dema dem ba mu nekk eh, nit am aw yaram am ay yax am ruu li tax mu tudd fii doomu aadama mooy ndax doomu aadama daa bokk ci mbindeefu yàlla yi gën a tedd moom mooy li gën a tedd ci li yàlla bind moo tax mu tudd fii al insaan waaye moo bind moo bind lépp tudd fi nit kese mooy ndax nit mooy li ci li yàlla ne yàlla moo bind doomu aadama ci alaq mooy dafa bëgg a fàttali yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yàlla moomu nga xam ne moo mën a bind nit jële ko ci alaq mu nekkoon lumbu deret mu dem ba nekk doomu aadama juy dox ko wax yàlla mi man loolu mën na laa jàngal itam nga xam ne mosoo xam dara mosoo jàng yàlla mën na laa jàngal yow yàlla moom nga xam ne moo mën a bind doomu aadama jële ko ci àllax ba mu nekk nit di dox ko wax yoru tànk ak i loxo ak i bët yàlla moom kàttanam àgg na ci moom itam mu mën laa jàngal ba nga xam kon fàttalikul sa borom boobu nga xam ne moo bind nit ci alaq mu baamuwaat baatub iqra iqra wa rabbukal akram jàngal te xam ne sa borom day ku tedd la sa borom ku tedd la baamu gi mu baamu ci baatu iqra beneen yoon mooy day jàngale ne képp kuy jàng dara kat te bëgg la ngay jàng sax ci sa bopp bii faaw nga koy jàng ka jàngaat di def li ñuy wax nafar di def li ñuy wax nafar mooy xam-xam boo ko bëggee faaw ngay jàng di jàngaat di liir di liiraat loolu mooy tax xam-xam bi a toog ci sa bopp bi mën cee sax moo tax yàlla baa mu baatub iqra bi baatub iqra ñaari yoon na kon jàngal te xam ne sa borom boobu ku tedd la sa borom boobu ku tedd la moo gën a tedd kuy tedd sa borom boobu alladi ka nga xam ne àllama bil qalam moom mooy jàngal ay nit ñu bare bare jaare ko ci ay xalima jaare ko ci ay xalima foofu yàlla mi ngi fi wane ngëneelul jàng ak ngëneelul bind wane ne jàng ak bind daal dañu am rapport bu dëgër ndax bari na ñoo xam yàlla mi ngi leen xamal te xam ba ma ngi ko jaarale ci xalima ay xalima bind kon ngëneelul jàng xam-xam ak ngëneelul bind xam-xam yàlla mi ngi koy wane fii mu bokk ci xéewale yi nga xam ne ko xéewale mbooleem doomu aadama yi kon allazi allama bil qalam moom yàlla mooy ki nga ne moo xamle ci ak xalima allamal insaana moom yàlla moo xamal nit loo xam ne xamu ko woon yàlla moo xamal doomu aadama loo xam ne euh, xamu ko woon yàlla rek moo ko ko xamal ci coobareem ba ma xeloo ba noppi nag mu andi benn baat boo xam ne baat buy jàjjee la kalla waaye doomu aadama yi de am na ci ñoo xam ne eh, la ñuy jëf bokkut ak lañ war a jëf de am na ci loo xam ne na ñoo xam eh, lañ fas bokkul ak lañ war a fas de yoru jaadu noonu de kalla innal insaana la yadga nit ku bew la nit ku mën a réeréelu la nit ku mën a tiitaru la nit ku mën a jaay daraja mbaa mu jaay alal mbaa mu jaay eh, wàccuwaay bu ko yàlla jox la ci kaw ay moromam kalla innal insaana la yadgaa nit dafa mën a bew lool ar raahu staghna saa yu demee ba woomal rek am daraja yoo xam ne am nañu ko amut mbaa mu am alal joo xam ne am nañu ko amut mbaa sax mu am xam-xam boo xam ne am nañu ko amut wala ab juddu day commencé di réyréelu ci kaw nit ñi day commencé di réyréelu ci kaw nit ñi di bew waaye inna ila rabbika rujaa koo fi mën a gis muy baj-baji ak a tiitaru xamal ne ci borom lay mujj ci yàlla lay mujj yàlla moo koy mujj faat mu delluwaat ci moom ndax ñëpp ci yàlla leen jëmaat ara ayta allati yanha ndax doo yéemu ci ki nga xam ne dafay tere abdan isa salla bu gisee ab jaam buy julli mu koy aaya julli aaya bi lu bari ci borom xam-xam yi nee ñu mi ngi wàccoon ci abu jahlin ndax abu jahlin dafa am bis mu wax ak aw nitam daal di tëkk yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di wax nit ñi ne leen saa yu ngeen gisatee yonante bi sallallahu alayhi dem ca Kaaba ka di julli rek dinaa ko fa fekk dagg boppam dinaa ko fa fekk faat ko moom mu waxee loolu ba yonante bi sallallahu ca wax ca dal na loolu day saa yu ko naree su ko naree def bu jógee ba nar koo def rek. malaaka yi danañ ko daggate ay morso dañ ko daggate ay morso ci loolu ci la yàlla wàcce aaya bii ne ara ayta allazi yanha ndax yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam doo yéemu ndax gis nga waa ji nga xam ne dafay tere lan lay kan lay tere abdan benn jaam isa solla bu jógee ngir julli abdan foofu yàlla mi ngi fi jublu yonente bi sallallahu alayhi wasallam li tax mu def ko nakira te waxul al abda mooy ngir màggal ko ak réyal ko loolu moo tax mu def ko nakira kon mu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaj ko ab laaj laaj boo xam ne laaju ngir mu yéemu ci la ngir mu yéemu ci la ne ko ndax gis nga ki nga xam ne day tere ab jaam bu jógee di julli ngir jëm yàlla bu jógee di julli ngir yàlla ara ayta ndax gis nga ndax doo yéemu ci ki nga xam ne in kaana alal huda bu gisee ku nekk ci ak njub aw amara bi taqwa wala boog mu digle ragal yàlla wala boog nga ne ara ayta ndax gis nga yonte ndax ndax yow gis nga kii nga xam ne la mu waroon def mooy in kaan ala huda mooy mu nekkoon ci ak njub ndax yéemu ci mbirum waa ji nga xam ne mi ngi aaye ko julli te moom la waroon def mooy nekk ci njub googu moom ànd ci julli googu aw amara taq waa mbaa boog muy digle ragal yàlla mbaa muy digle ragal yàlla loolu la waroon def waaye deful loolu xanaa dem day aaye ko julli di aaye ko fi woote ak ragal yàlla ara ayta ndax gis nga ndax doo yéemu ci waa ji xam ne in kazzaba moom day weddi yàlla di weddi bis penc wata walla ba noppi mu wane ginnaaw ndax doo yéemu ci mbiram gis nga fi yàlla baamu na fi baatu ara ayta ñetti yoon li tax mu baamu ko ñetti yoon mooy ngir euh, tas def li ñuy wax tasliya maanaam misère loo yonent bi sallallahu alayhi wasallam jafe-jafe yooyu mu nekkoon te abu jahlin dañ ko ko teg di ko fitnaal ngir bëgg yonent sama xaw koo fàtte ngir firanteel ko moo tax mu baa baa baatu ba ara ayte be ñetti yoon ndax doo yéemu xanaa doo xool mbirum ki nga xam ne mooy def lii ba ma xeloo ba noppi nag moom yàlla mu ne alam yaalam bi an anna allaha yara waaw kii def loolu di aaye ku julli muy abu jahlin nga xam ne mooy aaye ku julli te moom daa waroon jaar ci njub daa ragal yàlla waaye nag defu ko xanaa di aaye ku julli di wedd yàlla alam yaalam xanaa xamul ne bi anna allaha yara xanaa xamul ne yàlla mi ngi koy gis te bu ëllëgee lépp lim jëfoon yàlla dina ko ko xisaab dana ko ko fay kàllaa loolu muy def du noonu de kàllaa noonu muy def du noonu de loolu de bokkul ak lim waroon def loolu muy def baaxut de la in lam yantahi su bàyyiwut loolu muy def nag su bàyyiwut loolu muy def la nasfaan bin naasiya dinaa ko këf ci ab ci ay karawi jëxam dinaa ko jàpp bif ko ci ay karawi jëxam naasiya mooy karaw yu sax ci e, kanamu bopp kanam doomu aadama arab yi dañoo baaxoo woon bu nit defee e, aw njombe bañ di ko fitnaal dañuy jàpp ci karaw gi ci jébi di ko xëcc mu doon lu metti e, lanas fa an nag mooy di ko bif di ko bif di ko féq di ko ñodd ñodd bu dëgër ngir toroxal ko ngir toroxal ko yàlla ne abu jahlin moomu nga xam ne mooy aay yoon tam sax buy julli ak di ko tëkku la in lam yantahi su bay loolu muy def la nasfaan kon dinaa ko bif dinaa ko ci bin naas yee ci karaw yi jiham yi karaw yi nga xam ne moo sax yi nga xam ne moo sax ci kanam boppam naas yee tan boppam boobu nga xam ne kaasibatin ay fan rek moo ca fees dell xaati a ak ay njuumte ak ay njuumte te euh, te su ma koy def fal yadu naadiyahu mën naa ko bàyyi sax may naa ko sax mu ay mbokkam yépp abu jahlin bi nga xamee ne e, tëkku na yonte bi sallallahu alayhi yonte bi tëkku ko ne bu jéemee def la malaaka yi danañ ko daggate ay mors abu jahlin dane ah yonte bi man lay tëkku moom xanaa xamut ne fii ma nekk maa fi ëpp ay mbokk xanaa xamut ne waa dëkk bi daanaka ñëpp samay mbokk lañ te bis bu jéemee jàmmarloo ak man dinaa woo sama mbokk yëpp ñu ja ñu jàppale ma ñu jàmmarloo ak moom yonente bi moo tax yàlla ne ko fal yadu naadiyahu na woo ay mbokkam bis ma bis ma demee ba moom fal yadu naadiyahu na woo ay mbokkam moom abu jahlin su ko su leen wooyee de man yàlla sa nadu zabaniya dinaa woo malaaka yi nga xanaa ñoom malaaka yu am kàttan lañ yoo xam ne seen kattan yëmul fenn te lu mu leen wax ñu def ko bu ko defee ñu jàmmaaloog ñoom kàllaa ah loolu mënul nekk de mënu koo def de kàllaa bul topp kooku kàllaa kooku yoon wi mu jaar baaxut yoonu njaat baaxut te itam mënul dara ci li muy li muy li muy li muy li muy wax tëkk ko bi mu tëkk koo du ci def dara kon laa tuti'hu bu ko topp bu ko topp ci aaya googu mu lay aaya julli bu ko ci topp laa tuti'hu bu ko ci topp wasjud yow sujjóotal waqteer te nga jege sa borom te nga jàmm sa borom kon bu ko faale julli yooyu mu lay aaye itam bu ko faale yow continue say julli yow tey jege jegelu sa borom tey jaamu sa borom ba mu laal la ba mu laal la saar la woo xam ne euh, borom xam-xam yi dañuy wax ne aw saar la wu tàmbalee baatub iqra mu di digle jàng ba noppi jeexe baatub dépp di digle ñu jàmm yàlla ñu ne yàlla da cee bëgg a wane ne daal xam-xam moo war a jiitu jëfe topp ci waaye itam ñu mën cee gise ba tey ne xam-xam ak jëfe duñ tàqali koo mukk nit ki jamono ju nekk daa war di xam doo ko jëf waaye saa yu xamee itam daa war di jëfe lam xam moo tax saa yu tàmbalee iqra jàngal jeexe was wasjud waqti rëb del su jóot tey jege jegalu sa boroom kon loolu la aay yooyu di tekk e, ci ab tënk wala boog lii la saar wi tekk ci ab tënk bu gàtt salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu